bi fanweeri toni ceeb la def di juróom benn téeméeri saako président Macky Sall moo ko jébbal commission sociale bu Touba ca kanam ngir jàppale leen ci ndimbal ji nga xam ne moom lañ war a jox néew ji doole ji nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi di Touba ministre conseiller Cheikh Abdou Lahad gaynde fan ma moo ko indi ànd kook yeneen responsable président de la république dikk mu leen di jox li nga xam ne barkeeloom la te bu ngeen déggee ni ma bi ñu ci bëree bëri ay membres fondateurs dañu ko Touba ca kanam kon day mel ne njaboot gi day day genn ngi nekk ci dëkk bi di fi liggéey liggéey bu mu bu mu ràññee liggéey bu mu bu mu rafetlu ba tax mu jël trente tonnes ceeb ma kat yóbbul ma ko muy sama addiya ca liggéey boobu ñu defal sëñ Touba ndax moom képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal Cheikh Mouhamadou Mountakha di si Sëñ Tuubaa di ko jaarale foofu la ngay def am na ci ab cër ndax boobu taxawaay la am. sëriñ bi nag rafetlu na bu baax a baax liggéey yëpp Touba ci kanam te lépp loo xam ne mbooloo mi def nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba président Macky Sall la ko defal ndax moom la waroon. li ngeen def ci askan itam day mel ne moom ngeen ko defal ndax moom la yàlla dogal muy président de la république kon bépp jafe-jafe boo xam ne askan wi am nañ ko moom moo ko war a saafara. fee mu yenn tey di waxtaan ak gone yi ca loolee la ca loolee la yem te bu ngeen jógee da ngeen dimbali ñaari junni famille ci ndimbalu yaatu kon loola yéen a ngi koy dimbali ndax ñooñee xaj na noppal ngeen ko wuutu ngeen ko ci ñooñee li ngeen def ki dëkk bi itam mu ci wàllu tëli wàllu assainissement wallu poste de santé ak yu bëree baree bëri loolu itam day mel ne du ngeen ci def rek wuutu ngeen ko ca loola kon moom da leen di sant di leen gërëm di rafetlu seenu taxaay bi nga xamante ne bii mboolem yoonu murit rafetlu nañ ko mboolem réew mi yëpp itam nangu nañu ko. kilifa yi Touba ca kanam rafetlu nañu bu baax a baax jëfu président Macky Sall bi jëm ci commission sociale bi. ndax li ñuy fii dajale lépp ci askanu Touba la jëm ci tayal bi sëñ Touba yi dëkk ci dëkk bi te ittewoo ko ci la jëm kon su fa bee jëf ju toll nii def ci. kon bàyyi na xel askan wi waaye tubaa ci kanam mi mu ko jaarale ci ñoom it bàyyi na leen xel ndax su leen bàyyi wutoon xel bunt yi mënoon a jaarale yi mu jàll ci askan wi baax na kon su ko ci jaarale daa bàyyi xel Touba ci kanam kon cant gi dañ koy teg sa loxo nga jottalul ñu ko ndax jëf ji wax dëgg yàlla jëf yi yéene la ndax du doon du doon doon jëf joo xam ne sax doon nan ko séentu ak di ko bàyyi xel ndax war goo xam ne li ko war ci réew mi bari na yaatu na te fu ne ma nga fay jéem a def loxoom waaye nag itteel gu ko Touba itteel itteel gu askan wi itteel itteel goo xam ne Touba ci kanam itteel nag ko mel na ne feeñ na ci ba tax mu jëfe ci ni mu jëfe sëriñ Abdou Lahad Mbacké Abibou fàttali na taxawaayu Touba ci kanam kon président mel na ne yëg na ne Touba ci kanam ñi ngi koy am wat guñ ko taxawal ci askan wi wet googu nag mel na ne tey fekk si na leen ci wan leen na leen yëg naa ne yéen a ngi may taxawal ci askan wi ndax jëfam jii loolu rek lay tegtale Touba ci kanam yi fas na yéene ni mu ko daa defee lépp lu ko waaye ma a jox fa nga tax fa tax nga jox ko ko defal na la ko fa ba nga xam ne def na ko danañ ko fa def ba président xam ne li lim nu joxoon askan wi ko moomoon jot nañ ci incha allahu taala te loolu rek moo ñu ci amal solo. ci fàttali Touba ca kanam day amal journée sociale at mu nekk ci weeru koor gi di ci jàppale néew ji doole yi nga xam ne ñoo nekkee ci Touba ren ji nag ci atum 2021 bi recensé nañu lu ëpp ñaari junniy famille ñu war leen a jébbal ndimbal ci le 24 avril bii.